damay waxtaan bis ak sëñ fallu mune ma suleyman ma ne ko naam mu ma yett yi jëm ko xamé ndax ko xam sama digg ak mom xamné walu xam-xam amuñu ci won nebo ko yett ma lo mom lo bok ak luñ la bolé waye fàllu daawul war ngir wax lu mu wax rekk xam-xam la ciy wane waaye bëgg na koo jàngale te it jàppoon na ni sama jëmm ju xeebu jii dey mën na ci denc mbir ba tax na lu bari daf ma ko daan wax bi ma waxee loolu ma ne ko waa Sëñ Fàllu nga ne naa xàmme lu ma moom lu ma bokk ak luñ ma boole naka laa koy xàmmee mu ne ma Souleymane loo moom sañ-sañ nga ciy doxe loo moom sañ-sañ nga ciy doxe koo ci xajalul xaju ci ndax sa warugar la boobu mu ngi may jéem a leeralal diggante warteef warugar ak wareef mu ne ma Souleymane ñoom ñépp ñoo bokk ndey war la war nag ñaar la mën nga ko féete kaw mën na la féete suuf waaye wenn warteef du dox du war moroom ja tànku kon muy bi la war ak bi nga war yépp danga cay war a taxaw waaye warugar mooy li nga xam ne yaa ko moom wareef mooy li nga xam ne danga ko war a defal keneen warteef moo leen boole ëmb ba noppi ci anam ya mu ko daa defee ne ma jàngkatab tubaab nga mënoo dégg loolu loolu ndax am ngeen ko ci tubaab ma ne ko bàyyi fàllu loolu mooy obligation droit ak devoir mu ne ma tax nga maa ñeme gaañe ma ne ko ak lanati mu ne ma li nga moom wax nañ ci sañ-sañ nga ciy doxe waaye liñ la boole jaambure nga ciy doxe ma ne ko sëñ Fall ana luy jàmbure mu ne mooy dugg ci liñ la boole te yam ca fañ la war a yem fañ la loo mu ne ma ku jaambure ku ne doo dégg lu ci soyoon ma ne ko ak lan mu ne ma loo bokk loolu nag maandu nga ciy doxe ma ne ko bàyyi fàllu ana luy maandu mu ne ma maandu mooy wax ci loo xam wax ca lan lañ ca xam te doo ca yokk doo ca wàññi kon ci waxtaan woowu rekk jàngal na may jikkoy wolof yooyu daawoon naa leen dégg amaana njàngum tubaab bi doxoon sama diggante waat yooyu ba na mu waroon jeexitaloo ci man jeexitaloo ko fàlloog xam-xam ku ko bëgg a waxtaane nag faw mu am ay wunt yooyu danga leen di tijji bokk na ci wunt yooyu buntab lu joo fàllu siise ci topp wolof maanaam lu ko duggal ci wolof beneen bunt bi mooy bi mu ci xasee dugg nam ca daa doxe fam ko fekk ak ba mu ko fekkee foofu fan la ko yóbbu bunt ba ca des mooy lam yéene woon wolof te jàpp naa ne mooy bunt bi gën a tuuti ci bunt yi ndax ku mës a dégg Fallou Cissé xam nga lan moo doon yéeneem ci wolof yéene Fallou Cissé ci wolof mooy ne daa bëggoon wolof siggi wolof taxaw wolof mel ni mu war a mel ba saa su ne danaa wax nañ leen fexe ba wolof tëdde nu mu tëddee te bañ ko teural nee na tëral yii na ngay bëgg sonal làkk wi ndax ku dégg wolof ku ne xam ne ku ñu tëral wala luñ tëral rek sagom jugé nak moom taxoo nak moom mu ne kon nañu fekk wala fa mu tëdd jëflanteeg moom ci ne mu tëddee ma ne ko ah sëñ Fall loolu dana neex di mu ne ma dafa am kook borom xam-xam la ci réew mi dafa wax wax ju mu dugg ba ne ma mooy sëñ Moor Mbay boroom xam-xam la ñu bari dégg nañ ko mu ne dafa wax wax joo xam ne dafa ma neex lool ma ne ko àllu ah, tax mu ne sëñ Moor Mbay dafa ne réew mi de ku nekk ak sa làkk waaye wolof làkku ñépp te lu ñépp bokk ñépp ko war a taxaw te Depo nak mbatiitu réew mi dëppoo nak li nit ñi soxla mu ne ma Souleymane seetlu woo ne réew mi daana ko waaso yëpp ami gàmme ndax bob mu ngi may bëgg a leeral baatu gàmme ak gàmmu te ñaar ñooñu bokkut te la da ciy am gàmmu bés la bopp ci sunu mbatiit nun wolof dañ ko amaloon sunu bopp daan ci def yëf barab bi tudd dimisq gënoon cee siw ci Kawlax waaye nag mu jël baat bi xam le ni mag ñi biñ ñëwee ñu nekk ci loolu soppiwuñu baat bi dañ ko jël duggal ko ci diine moo tax ñuy jël baatu gàmmu mu tombeek li ñuy defal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye dëgg dëgg li dox ci diggante waasoog moroom loolu mi ngi tudd gàmme mu ne ma xanaa gisoo ni ñépp am nañu gambe ba mu des wolof ma ne ko waaw mu ne ma xam nga loolu jagleel sunu borom la lu tax ndax wolof dafa war a dox ci diggante waaso yi moo tax wolof boo seetloo fu mu toog rek danaan sama naar bi sama séeréer sama sama waaye du samay moomeel Souleymane ma ne ko samay moomeel de laa xam wax ma jeneen sama mu ne samay wolof de samay cofeel la samay cofeel la ma ne ko ci naka mu ne ma seetlul bu nee sama séeréer bi lu waaye indi mun a joxal sama séeréer bu nee sama sama njaago bi lu waaye indi mun a joxal sama njaago buñ ne sama naar bi lu na nar a dal ci kaw waaye mu ne eh bàyyil sama naar bi kii sama naara loolu jagle la ci réew mi kon faw ñu taxawu wolof taxawu mbatiitam taxawu làkkam loolu mu ngi koy xamal ci biñ daan waxtaan loolu waaye li joo fàllu ci topp wolof pas pas dëgg moo ko lal fàllu siise nee na ma te wax na ko it ci mbooloo nee na sama mam ma yaasin ñang mi jur xadi ñang soxna xadi ñang mi ndeyam moo ko ne te maam ma yaasin ñang dund téeméeri at ak ñaar fukk dégg téeméeri at ak fanweer ak ñett dund na ko nee na maam Yaasin Ñang moo ko ne dégg na Sëriñ Tubaa ne nit dina jàng ba mokkal génn réew mi uti xam-xam delsu fii ci réew mi ab dongaam gàgganti ko te ci wolof la koy defe mu ne ko maam musoo ma wax lu du deug kon sa wax gi gem na ni deug la fas yene na bok ci ñi nga xamne ëlëk ñoy layal serigne Touba ci waxam joju bu wax ci wolof lolo duggal serigne fallu ci top wolof waye bi mu tambalé lolu dafa am lu mu wax palu. serigne fallu dafa ne wolof buñ ko don top nak lañ koy topé luy wolof ñu ne wolof day aw làkk la aw làkk ku koy jëfandikoo ñu ne ki koy jëfandikoo mooy nit mu ne kon dina topp nit moom sëñ Fallou ci ba muy doon ndox ci ndiggal baayam tudd fa li ñuy wax wasal am wasal sartaagal ci pëyu jigéen romb këkk dajeg tooba jaxasoo am mu doon fa lumb di rumbi rumbi ba doon fa mbéemuur dëkk ci àndam ba ne cëpp génn indaale jëmm lu ci nekk fu mu ci toll sëñ Fallou tudd ko laal ko wax lu muy nu muy tollool bu ne cëpp indaale jëmm mu tàpp ko bu yooxoo indaale bakkan mu am tur bu yooxoo bu yooxuwul indaalewul bakkan mu am tur sëñ Fallou tudd ko ne bu yooxoo jëmm bu ne cëpp te indaalewul bakkan moo tudd per bi bu indaalee bakkan te ndeyam joxagu ko ween mu nàmp mu am nu mu tudd muy candeent di tekki loo xam ne mi ngi deñee ci àndam waaye li am solo ci wax jooju mooy ànd ci boppam te léebu woowu dikk na fi léegi léebu wi dikk na fi ci anamu ku wacc sa ànd ànd boo dem fekk fa boroom te ñiy li ñutu ci wàllu paj xam nañ ne ànd ci tubaab mooy li ñuy wax placenta te placenta dañ lay wax ni cellule unitaire et unique la ci tubaab wolof xam ko ba ciy léebu ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa boroom tënj muy li ñuy wax grossesse tënj séex bu ñu bokkee benn ànd bu dee fukki yoon juróom-ñeent yëpp kenn ki day dee kon wolof xamoon na ko xam-xam bi ci nekkoon wolof xam na ko te fàllu indi na ko teg ko waaye bi mu toppee nit ba mu ne cëpp ndeyam jox ko ween mu tuddee ko liir wolof ne liir la tudd fàllu wax lu tax liir ak ya ca am yépp ci ba muy judd ba ba muy dee tudd fa néew fàllu topp na ko teg ci loxom ne la nii la tudd ci wolof te liggéey boobu mi ngi fii toog waaye bi fàllu duggee ci làkk yi dafa ne làkk yi nit moo koy jëfandikoo kon dinaa topp nit ci ay yëngutam jël nit ànd ak moom ci tool jël nit ànd ak moom géej jël nit yóbbu mu sàmmi jël nit takkal ko jabar jël nit boole ko kii nit jël nit boo def lépp lu ci nekk baataan ba mu laaj sëriñ Fallou teg na ci loxo ne lii la nit tollal ci jamono jii mu toll waaye bi mu defee loolu jël nit yóbbu ci mbaar yóbbu ci yeneen barab dafa am xam-xam bu ci Fallou Cissé daan doxe gannaaw li mu xamaloon boppam te téye ko téye gu wér bu duggaa mbaar ba làkke fa leen na du ci yem day dem mbaaroo mbaar dana dem gën gaa néew lu tolloog juróomi mbaar fekk fa ay mag ñoo xam ne ka ca gën a néewi at dina am ñaar fanweeri lu lu lu weesu euh, juróom-ñaar fukki at laaj ko ci xarañteefam ak jëfandikoo bu ko defee mu gam leen loolu tollale xool fa ñu dëppoo mu doog ko jàpp loolu doxinu xam-xam la boroom xam-xam mooy ñuy doxe moo tax lu mu musaa xaati goñ rek jàppal téere ndax daaw ci waxee bakkan mu ñëw nag li wolof naan bay ci say wewu tànk mu tàmbale ci boppam moom fi nga xam ne foofu la cosaanoo ci daara daan jàng téere mag yi ndax ne negam nit dina am leneen lu koy dundal am na lool jëmm lay dundal waaye am na lool day dundal lu jéggi jëmm mooy wàllu pas-pas mu dugg ci téere mag ñi jàng li ñu xam jàng ci ba gis ci xam-xam génne baataan yeeg njariñ yi indil nit ñi teg waaye yemu ci dafa xool ya ca desoon mu jéem ko cee dolli indi ko nag ci ay anam yu woyam boppam yàlla dogal réew mi am ay mag yu bëgg seen réew fonk seen bopp di luñutu di luñutu ba indil ñu mbindin wii ñuy wo bindee tey bi mu déggee loolu faalu soobu ci xool mbind mi ngir wax ne fàllu dafa amoon yarub xam-xam yarub xam-xam mooy ni ci wàllu xam-xam doo ci leble doo ci fay bor xam-xam rek ngay sédd ba tax na bi mu xoolee li ñu indi mu ne ay la yéwén mbind mii de moo gën a dëppook làkk wi doonte dong daara la mu ne lii moo gën a dëppook làkk wi balaa ngaa yóotu péfé na fekk pépp teg ci sa tige ñoo daan wax balaa nga naan nañu utal làkk wi baataan yu yees day fekk nga xam yan baataan ñoo am ci làkk wi te lu bëree ngi ci làkk wi doxuñu ci làkk wi umpale tax ñu koy fentaliwaat waaye bu ñu xamoon li ci làkk wi ak li fàllu yéene woon làkk wi ak li mu yor ci euh, wayndereem dinañu góor góorgóorlu taxawee làkk wi taxaw ci làkk yi ci anam yu ma tëddee. waa dëkk bi yëpp tàggoon nañu coono fan la ñuy jëlee soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi. Cheikh soow ñëpp naan ko neex Sow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na te neex na boo amee xew soxla ci Sow ak lu mu bëri bëri quantité boo ci soxla boo ñëwee ñu jaay la